askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee askan wi yëpp bokk benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndool gi ci réew mi Sénégal gi réewum jàmm liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi lool ñuy xaar ci kon mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa amati nañu mbégte gu rëy di dellu si waat ci seen émission jàkkaarloo askan wi. jàkkaarloo askan wi comme ni ma koy faral di waxee émission la boo xam ne nii yéen askan wi yéen a ko tax a jóg. dañuy sol sunuy dàll fekk leen ci seen i biir gox wala sax ñu fekk leen ci seen biir barabu liggéeyukaay dajale leen waxtaan ak yéen ci seen i jafeñ-jafeñ ñu jéem a xool ana yan pexe ak yan yoon lañu war a mën a jaar ba jëm ci indi saafara. tey jii nag seen équipe bu jàkkaarloo askan wi mi ngi fii nga xam ne nii moom moo di ci commune Mbour commune Mbour nag nekk na dëkk boo xam ne nii daanaka Sénégal gépp xam nañu mbuur ñu ngi ko def commune ci atum 1926 nekkul nag dëkk boo xam ni dëkk bu rëy la ndax ci xayma bu ñu doon xool doomu aadama yi fii yeewoo bu ko ëppul tamit yaakaar naa yéesu ko mu toll ci ñeenti téeméeri junniy doomi aadama lu ci tolloog ñaar fukki quartier ak juróom ñoom ñoo seq gox bi nga xam ne nii moom di Mbour mënuñoo lim yëpp nag waaye daañu ci lim yenn coose est ci la bokk coose ouest ci la bokk jàmmagën ci la bokk sànc ci la bokk bay dëkk ci la bokk quartier Espagne ci la bokk Falloox ci la bokk 11 novembre ci la bokk Daaru Salaam ci la bokk mbuurtul tukulóor ci la bokk et cetera et cetera nañ jàpp ne commune Mbour am na ay communes yoo xam ne ni ñoom la frontière wul bokk na ci commune bu sali bokk na ci commune bu Malicounda bokk na ci commune bu Somone bokk na ci commune bu Ngaparou bokk na aussi commune bi nga xam ne moom moo di commune Popenguine commune bu Mbour am na lu ci tolloog fukki maire ak benn yoo xam ne ni jot nañ fiy jaar ki ko njëkk a jiite moom mooy Ibou Kébé ki ci tegu di Demba Diop ndam si yàlla si ki ci tegu di Samba Sow ki ci tegu di Amadou Ly ki ci tegu di Abdou Mané ki ci tegu di Tafsir Demba Diouf ki ci tegu di Moussa ki ci tegu di mbay Diagne ci diggante bi nag am na délégation spéciale boo xam ne jotoon naa yore mairie bi laataa ñu koy yëkkati nag di ko teg ci loxol ki nga xam ne nii moom moo di El Hadji Fallou Sylla mu yore ko nag lu toll ci ñaari mandat El Hadji Fallou Sylla moomulee moo wootee tey jii ñu wuy si ko monsieur le maire asalaamaaleykum. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare. ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi nga xam ñoo lay seetaan jamono ji à travers émission bi di jàkkaarloog askan wi. waaw euh, maa ngi profité ci occasion bi ñoom tey du nuyu waa Mbour yëpp di gërëm waa Mbour yëpp di gërëm aussi waa département bi parce que Mbour comme ni nga ko waxee léegi rek. day dëkku cosaan dëkk boo xam ni yàgg na lool waaye nag comme tey jii occasion la dañ ciy profité nuy population bi yëpp sant leen gërëm leen parce que 2009 lañ fi ñëwoon ñu installé ñu 2014 tamit ñu ñëwaat fi ñu installé ñu bon nag ñun waa Mbour man waa Mbour deseluma leen dara du dul gërëm leen sant leen di gërëm nag conseil municipaux yi fi ñëw yëpp di gërëm aussi conseil départemental yi en général gërëm ñëpp daal di sant ñëpp. Euh, Fallou Sylla ngir ñi nga xam ñooy seetaan te bëgg xam fallu Sylla ndax mën nañoo xam Fallou Sylla mooy kan. waaw Fallou Sylla de moom euh, yaakaar naa ni 1955 la judd fii ci Mbour ah di liggéey tamit fii ci Mbour ndax man vétérinaire la maa ngi ak sama pharmacie clinique vétérinaire fii à côté même pas à 200 mètres. est-ce que yaa xëy. Hmm? gëj nga faa xëy de ah, bu set ma jaar fa ma fay jaar le matin ba booru 10 heures 10 heures et demi ma soog ñëw ci maire bi. Mm-hmm. moom daal pour gàttal daal waa Mbour xamante nañu ndax fii la fii laa juddoo fii laa yaroo. waaw nga def ba dugg ci politique. waaw politique nag euh, mën na ñoo wax ni fii dañoo am ay gàngoor yoo xam ni. dañoo yàgg ci politique ñooñu mën naa wax ñoo ma ci dugal te bu may cité damay wax wax d'abord ndem si yàlla baabu jum mi nga xam ni maak moom ñoo dëkkoon mu dugal ma ci mbir mi ànd ak ñoom Tafsir ba juuf ñoom mbay Guèye ñoom Modou Guèye maanaam daal kàngoor yooyu ñoo ma woo ne ma daal dañoo bëggoon nga ñëw ci parti socialiste jiite ñu jàpp ci parce que nag yàgg naa bokk ci parti socialiste yàgg na lool. ndax parti socialiste rek laa musa xam léegi nag bu ñu ma ci dugalee ñëw woote waxtaan ak ñun ma xool ni daal adhésion populaire bi ñëpp presque ànd nañ ci ñëpp d'accord nañ ci ma ni ban bisimilah. ma ci laata dugg tamit dem naa waxtaan ak euh, samay waajur waxtaan ak sama sëriñ waxtaan ak ñëpp ñu ne ma daal mën nga cee dugg. nga duggu nekk politicien yàlla def nga nekk maire. Mhm. falu faluwaat. waaw mu mel ne que pal bi moom xawoon naa jafe tuuti. waaw xaal gi nag. Euh, jafe na ja parce que liste yi bari woon naa. waaw jafe na jafewul dégg naa tiitoon nga lool sax. ah de non loolu mënumaa tiital ndax ñooñu moom xam naa ne dama leen xaw a ëpp doole tuuti ah matoon nañu ñaar fukk ak ñett ay candidat xam nga nag dëkk bu toll ni Mbour comme ni nga ko waxee nii ñaar fukki candidat ak ñett yaakaar naa jaaduwul mm-hmm. waaye nag ku ñëw ne damaa bëgg a doon candidat te amul benn lu ñu la teg pour nga doon candidat affaire bi day ubbeeku. ku ci nekk da ngay jëw taxaw ne eh, mbooloo laa jiite damaa soxla dëkk bi ñu ne ay moo tax it keroog ci jour vote bi vraiment vote bi yàgg na lool metti na lool waaye nag eh, eh, fa ñu mujje daal mooy a ah, population bi xam nañ ni kii ñu fi tegoon en 2009 am na lu fi def góorgóorlu na ah nañu ko falaat loolu de moom indi. Ah, justement ci li nga def. laaj naa ci dëkk bi asken wi réalisation. Mhm. la fi monsieur le maire def. daanaka daal bu dee téeméer la mën naa xam ne ne juróom-ñeent fukk yi moom daanaka ngaañ nañ la ak doole sax euh, laata ma ñëw ci li ñu lay ngaañi sax. dama bëgg nga wax ma monsieur le maire. def nga fi cinq ans. waaw lan nga fi def loo xam ne nii ku romb mbuur dana ci mën a teg bët. ah man dama yaakaar ni képp ku dëkk mbuur wala nga xam mbuur wala nga yàgg ñëw mbuur booy dugg mbuur war nga xam ne mbuur am na changement ndax mbuur bariwul woon ay tali tali yoo xam ni xale yi bi ñu juddoo ba léegi fa yii lañ fa fekkoon. léegi booy dugg mbuur di nga gis tali yu mag ak ànd ak ay làmpam yoo xam ni wër na dëkk bi yëpp ci biir dëkk bi tamit def nañ fi ay tali loolu yaakaar naa waa mbuur gis nañu ko li ci tegu mooy dispensaires yi bariwul woon def nañ fi ay dispensaires yu bari ndax coopération décentralisée moom la ñuy liggéey di liggéey aussi ak commune bi ak budget commune bi gis nañu tamit ne lu musul am mbuur am na mbuur maanaam muy Mbour à l'égout bi aussi yàlla def na ni ñu ngi ci góorgóorlu bu baax a baax a baax euh, mbalit mi aussi mooy li ma rek ci assainissement mbalit moom yaakaar naa ni maire buy wax loolu moo la jaaxal waaye nag ñu def nañ ci ay jéego yu baax a baax a baax te fan yi nit ñi euh, gis nañ ni changement yu bari am na ci waaye nag du doy ndax population moom buy gën a màgg ah mbalit mi di gën a bari te yooyu aussi ñu ngi ci état civil bii nga jàkkaarloon nii amu fi woon bu njëkk da nga daa ñëw rang ba bëgg a dee egsi sax ñu ne la sa këyitu doom boobu kat gisuñu ko wala loolu amu fi wala xale bi jàng dem ba sori am ay problème waaye bi ñëwee mi ngi nii gis nga ni ñu ko defaree euh, di ko informatiser pour ñëpp mën cee liggéey nga xam ne léegi boo ñëwee doo fi yàgg nga mën a am say këyit nga dem si yoon ah yi ci des aussi gis ngeen ko stade bu bees bi gis nga ko. nit ñi bu ñu ko gisee dañuy wax ni. Euh, boobu moom defoo ko moom. ah xakañ boo déggee mañ ni la ñun ñoo ko fi def c'est-à-dire que euh, euh, Coupe d'Afrique bi amoon état bi dafay defoon ay stades yu bari stades yu bari yu yàqu. léegi nag bi ñëwee ñu ne dañuy renover stades yi dañ ne stades régionaux yi rek la ñuy defar man nag ma ñëw toog ànd ak conseil municipal Mbour ñu dem def ci ay jéego maanaam dem waxtaan ak état bi. gis nañ tamit euh, sunu mbokk chinois yi nga xam ne ñoo ko defar bi gars yi ñëwee dañu ne stade régional lañ leen wax mais nag comme Mbour des département bu mag des dëkk bu mag am na cahier de charge yoo xam ni mën nañ ko cee def su fekkee ni d'accord nga ci ah yàlla mën naa def ñu defal lay stade charte yooyu ñu tëraloon nag bi ci jiitu mooy ndax di nga mën a indi électricité bi ma mën naa ko te électricité bi mooy poste courant bu mag yooyu ñuy indi au moins fay nañ ci lu mat cinquante millions. ñu ne ndox mi ma ñu ne ñëw ndox mi tamit ñun ñoo ko fay bi ñuy wax aussi wax nañu gardiennage gardiennage depuis 2009 ñun ñoo koy fey à raison de 1 million 200 par mois boobu ba léegi ñu ngi fi. condition yooyu nag lañu ñu matal ba mu mat ñu ne ñu yoon dañu la indil stade te yaakaar naa ni réccuwuñu ko defal nañu stade bu mucc ayib stade boo xam ni fii mu nekk nii Coupe d'Afrique bii di ñëw bu 2015 moins de 20 ans yi fii lañ koy defaree. alhamdulilah léegi bi nga ne entrée Mbour Euh, bul ne ma nag euh, euh, état bee ko état bee moom. lan ci maanaam route nationale bi. waaw. route nationale bi monsieur booy daw ba dugg biir Mbour. war nga mhm. fay def 4 heures de temps. waaw ah deuxième mois si dafa la dem Crous waaw xam nga. dëkk bu day nu Mbour. waaw. mais j'espère que war na mën a dépasser foofu. ah mais Mbour boo xoolee fa mu nekkoon ak fi mu toll léegi ah, ñu dañ ciy sant yàlla parce que dëkk bi day màgg. yaakaar naa ni Mbour de day day commune boo xam ni ci transport urbain euh, dëkk bu développé la ci ndax ñëpp xam nañu njariñu mbuur ñëpp xam nañu économie Mbour yaakaar naa mbaaxaan sax euh, du ma wedd ci loolu nga xam ni moom moo jiitee euh, transport syndicat bi bi nga xam ni moom moo yore transport interurbain ak urbain yi nekk fii ci dëkk bi xam nga mbuur bu njëkk daa nga taxawul yàgg doo gis taxi mais léegi dama ne ñëpp xam nañu dëkk bi xéewal a ngi ci jàmm a ngi fi ba nga xam ni euh, foo tourné mais boo xoolee oto yi sax euh, façon marque bu ne ngay gis façon immatriculation bu ne gis moo tax dëkk bi xat dëkk bi ñun ñëpp xam nañ ni dëkk bi xat na mais nag ñu ngi ciy jóg ndax am na ay plan de circulation yoo xam ni ñu ngi koy defar. Mm, ci biir dëkk bi waaw ci biir dëkk bi ndax fii mu nekk nii euh, yaakaar naa ni ñu nag waa ADM agence de développement local. Mm-hmm. am na loo xam ne ñu koy jëfanteeg ñoom moo tax centre ville bi bu soobee yàlla fii ci fan di ngeen gis ni euh, dañ ko song ndax amoon nañ fi benn cent 450 millions yoo xam ni euh, ñu sommes prêts euh, ñu ñëw waxtaan ceeg ñoom pour ñu tàmbali liggéey bi ndax ADM e mooy ñiy liggéey ak agence ak communes yi rek dañuy leb boo fayee rek ñu defaral la waaw te fii mu nekk nii yaakaar naa fan yi am na lu ñu leen waajal lu bari loo xam ni bu ñu leen ko joxee dëkk bi di nga gis liggéey bi commencé waat. xam nga des fois dama koy sànni dama leen koy faral di sànni xeer. léegi instant bii dañ jamono joo xam lu concret la ñu bëgg. da ngay naan kat bés sàngam daañu commencé lii bés sàngam loolu dana pare bés sàngam daañu tàmbali loo xam dafa. waaw xam nga fii mu nekk dañoo toll jamono joo Sénégalais dañoo dépassé foofu léegi. waaw nii mën naa laa wax ni fii mu nekk maa ngi ak chèque 100 millions sama boo xam ni fii mu nekk eh, fi ñu ko war a yóbbu ñoom rek moom rek la ñuy xaar te ñooñu dañu ne dañoo yor seen cahier de charge boo koy joxee ñi ñëw di liggéey bañ ma ko waxee ndax léegi gëm naa loolu ndax bu njëkk bu ñu ko waxee du ñu def ah ADM de boo ko defee dañ lay xaar loolu dañ lay kii waaye xam nañ ñëpp xam nañu léegi ADM ah, boo fayee say bor ñu liggéeyal la fii mu ne nii tali bii ñu doon defar fii eh, ci mandat bii passé yooyu ñu doon defar yëpp ba ñu fayee fay ñu sax ba mu mat dañoo commencé fay rek si signé te ñoom accord ñu commencé liggéey waxuma nag bii nga xam ni nag dañuy ñëw nag gàddu xaw a takku ñoo ne salaamaaleykum teg ko ci seen loxo. loolu transport la ñu ñëw léegi ci wàllu gestion collecte des ordures ménager et inondation dafa nekk point boo xam dafa mu amal solo. Mhm. monsieur le maire Mbour ñaata oto mbalit fi am. waaw Mbour de boo koy xool euh, war nañoo am lu mat juróom benn auto mbalit. ak Mbour yëpp ni mu toll. ak Mbour yëpp ni mu toll. juróom benn oto. waaw juróom benn oto yooyu neewu fi woon sax day soog a ñëw waaye nag boobu kooku ci suñu patrimoine bopp la. waaye nag mbalit mi dañ cee def appel d'offre am koo xam ni moo gañ mbalit mi indi ay otoom booleeg otoy mairie bi léegi da nga ma laaj li nga xam ni moom la mairie bi am waaye waa ji ci boppam li mu indi ak booleeg li mairie bi am ak waa UDE yi nga xam ni temps yi état bi dugal na ci loxoom pour ñu jàppale ñu yaakaar naa ni dëkk bi commencé na euh, commencé set set boo xam ne amul foon. <laughs> commencé set te barki Demba Ndiaye rek lañu cee doon dafa envoyé benn lu mel. par la mbalit waaw xam nga. xanaa kay da ngeen naan bu setee fii moo set maanaam ci dëkk bi ah, waaw mais xam nga lépp lépp ay ay quartier ne xam ñoo nekk fii quoi mais quartier alentour yi moom setuñu Moussa Lemar. mais ah kañ xam nga lépp. non dugg naa ci dëkk bi Moussa Lemar tey. non non eh, fii am na problème. maanaam mbalit mi mhm. eh, niñ ko daan ah, bu njëkk da nga daa ñëw fekk fi ay jallu mbalit yoo xam ni ay tas d'ordures yu yàgg yàgg yàgg te loolu bi ñu ñëwee 2009 loolu la ñu jëkk a génne ba mu leer nañ loolu taambalit yooyu mooy sën yu mag yooyu gi amatul mbuur gisatoo ko fi li ci des nag mooy xam nga mbuur dafay màgg quartier périphérie yi ngay wax yooyu am na ci bari yoo xam ne bay dëkk lañ leen di wax quartier yooyu nag c'est des quartiers spontanés kenn lotissé am na yoo xam ne kenn lotissé gu ko mais loolu lotissé wul nag euh, oto mbalit yi pour ñu jaar fa problème la te mbuur day dëkk suuf. mais da war a fexe aussi ñu jaar fa. waaw non ñu ñu nga fay jaar. parce que xam nga nit ak fu mu dëkk ak mbalit ñoom ñooy dëkk. waaw mais xam nga aussi en tant que monsieur le maire dañ benn cadre de vie a jaar ci yoon. xam nga ñooñu ñëpp ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu nekk ci quartier périphérique bi ñu nekk ci biir dëkk bi. ñooñu dama ne ñun sunu objectif yëpp mooy jàppale leen bu baax ndax quartier kii sax neex na gérer hmm. mais quartier périphérique yi comme ni ma la koy waxee daf ci am ay euh, ay kii yoo xam ne kenn la tuseegu ko bay dëkk la am na ci ñoo xam ne aussi commencé nañu ko lotissé bi ñu ko commencé lotissé oto mbalit yi commencé nañ faa dugg te fii mu nekk nii euh, su ci sunu mandat bi sunu euh, sunu point focal yëpp ñu ngi koy teg ci oto ci euh, quartier périphérique yi. pour indil leen courant indil leen ndox pour jël mbalit mi loolu moom mooy sunu objectif. yaa ko wax rek monsieur le maire. loolu maa ko wax fii te bu soobee yàlla. ak conseil municipal bi nga xam ni. Euh, yaakaar na ni bi ñu fi taxawee ñoom ñoo ko posé dañu ne. suñuy mbir léegi nañu ko tàmbalee léegi ci quartier périphérique gi pour ñëwaat nag léegi ci biir dëkk bi. j'espère di ngeen ci boole inondation yi aussi. waaw inondation nag inondation moom lu naqaree géré la ndax gis nga mbuur bi ñu daa ñëw <clears throat> am na ci ka foo xam ne place yoo xam ne danaa inondé ay ñaari fan ñetti fan waaye loolu def nañ ci ay pexe yoo xam ni bu tawee ba taw a taw lu mu gën a bari bari bari benn waxtu wala waxtu genn wàllu ndox mi dana dem. loolu moom góorgóorlu nañ ci ba am lu mel noonu waaye nag ndox mi yor yenn saa yi tamit mu xaw ñu ëpp doole. maanaam daal ci quartier Mbour yi si nekk environnement. waaw parce que non Mbour na xam nga boo ko seetloo dëkk bi euh, sant nañu baax dëkk bari suuf la bokkul ak yeneen dëkk yi nga xam ne bu tawee bu tawee taw yu bari yooyu rek mu indoone mais nag am nañ ci quartier yoo xam ne ci booru dex gi la nekk. moo doon euh, zone Sonatel bi moom problème la. te fii mu nekk nii vraiment ak coopération décentralisée bi waxtaan nañ ci ak suñuy mbokk allemand yi war nañ fay ñëw ci lu mu gën a gàtt. feeg un mois deux mois ñu ñëw ñëwoon nañ fi sax def ay études yóbbu mais dañuy ñëwaat xool. vraiment ñi euh, nga xam ne nan lañ mën a def pour ñu pratiquer ko. dama seetaan ci télévision bi ñu won benn quartier ma gis ay jigéen di doon ci doxu teen yi euh, ma jékki-jékki posé question bi ñu ne benn quartier la ñu ne benn quartier la nekkee ci diwaanu Mbour. waaw loolu am na waaw mu ne monsieur ji fi mu toll tey bu ñu demee ba nga xam ne yow da ngay toog di sensibiliser bi nga gis sa population di mhm. ko jëfandikoo loo xam ne di ci seen wàllu wér-gu-yaram waaw xam nga loolu <laughs> xam nga loolu mais loolu am na Dakar sax Dakar ga ngay capital bi boo demee am na ñuy root ci ay teen waxuma la nag mbuur gii Dakar nga wax de waaw Dakar laa wax parce que ñun dañuy suivre télé bi yéen ñii foo leen dugg xam nañu ko te li ngeen di wax rek la ñuy suivre mhm. ni ngeen génnee mbóot yi nekk fii ci mbuur ngeen koy génne ci ndakaaru fépp bu ñu ko waxee nag ñu it dañ ci teg suñu bët waaye nag dama lay xamal ne la château d'eau bi gën a ci Afrique de l'Ouest mbuur gi la ne te boo déggee ñoo la ñooñu mu tiim amuñu ndox dañ ko lotisewul lotissement bi la bay dëkk la gars yi dañoo ñëwoon rek dëkk nu mu leen neexee waaye nag ku fa dem ñu ngi xam ni commencé nañu ko lotissé normal waa SDE gis nañ leen ñu ne bu lotissement bi pare ñu dugal seen i ndox courant bi dana ñëw dee sa commencé nañu courant bi ndax boo ñëwee ci yenn quartier périphérique yi yooyu ñuy wax euh, booru Espagne xam nga Mbour am nañ quartier Espagne 1 Espagne yooyu commencé nañ ko faa dugal waaye nag matagul mais nag ay projet yu taxaw la yoo xam ni fii mu nekk nii mandat bii ñuy tàmbali ci lu mu gën a gaaw danañ ko fa def ndax fi mu nekk loolu mooy suñu objectif. mais am na benn quartier bu may dugg sànq. Hmm. gannaaw bi ba ma ko laajte ñu ne ma quartier bay dëkk la. waaw kenn dafa envoyé ci woon benn élément. ñu ne quartier bi lu toll ci fukki junni doomu adama ak ñeent ñoo fay yeewoo. waaw ëpp na ko sax. Hmm. quartier boobu léegi lotissé nañ ko. Hmm. te ñaari teen. ñaari borne ndax quartier boobu am na lu ci jot a dugal ci courant am na lu ñu jot a dugal ci courant li ci des ñoom ci seen bopp ñoo nañu toog ñu waxtaan ak ñoom pour mbirum ndox mi ndox mi bi ñu defaree tali bi ba pare am na ay tuyaux yu mag yuy jaar ci kaw xam nga dañoo amoon benn projet boo xam ni dafa wër jaar fi nga xam ni yàgg na trop amuñu ndox muy zone Sonatel bi wàcc si jaar booru sanc ñooñu nag mooy wàcc si jaar quartier boobu ñuy wax Médine ak quartier euh, sant yàlla sant yàlla sax la ñuy wax moom léegi quartier bu mag la muy bay dëkk euh, foofu foofu la tuyau yi egg si jaar fa te fii mu nekk nii lii ma lay wax nii damay bañ a wax nii bon dans un mois de mois nga gis ñu ñu commencé koo kii waaye fii mu nekk ni suñu objectif mooy li ma la wax mooy quartier yooyu nga xam ne amuñu ndox amuñu courant loolu moo tax mënuñoo nelaw te bu soobee ah, a toog xaar. xam nga nee nga incha allah. mais ah, mais mais. non ci biir wax ji nee nga ah, boo nee daañu def sama quartier sama quartier yooyu. gaañ xam nañu ko parce que non non du yomb na sax yomb na yombul parce que xam nga kenn ku nekk mën ngaa toog sa bureau rek naan bon quartier bële xam naa ne am na ndox yabal naa ko samay conseil municipal xool nañ ko mais incha allah dinaa ko defar. ah, ah waaw juróomi at neen yi. déet déet man bi ma ñëwee ba léegi nag yàlla dimbale ma ne su ma nee lii danaa ko def may leen ma tuuti ñu ngi may may mais nag xam nga comme ni nga ko waxee dëkk bee yaatu dëkk bee màgg xam nga nag da ngay laal fii su beneen yoonee nga laal fële laal fii laal fii bu ñu ko bu bu ñu laalee fépp rek lépp daj mais nag lépp daj moom yàlla rek ko mën waaye danañ ko def waaye nag il faut ñu jiital ci yàlla parce que nag aussi nag euh, comme ni ko waxee léegi rek yow sa bopp yaa ne incha allah. monsieur le maire euh, monsieur le maire seen jaam suuf si métti bi mhm. waaw fii moom y' a xam nga dëkk bu am litige foncier rek. sa à dee que dëkk bu intéressant ndax ñëpp fii lañ bëgg a dëkk si xam nga wax nañ léegi affaire bay dëkk da ngay ñëw ñëw ci benn tool bu newoon fii rek nga daal di rek fàq rek daal di dëkk toog di xaar lotissement ndax bu problème bi ñu am mooy Malicounda moo ñu wër moo ñu wër baboor tribord amuñu fen fu ñu génn te Malicounda bi mu ñu wëree dañoo ak maire yi fi nekkoon bu yàgg dañoo ñëw sës ci mbuur di lot seeni arrière fa ñu yemoon fa ñu yem ci mbuur la ñuy jël di lot seeni arrière xam nga nag dootoo am dootoo am solution solution bi mooy périmètre communal ñu am ko te fii mu nekk nag comme léegi érigé nañ yëpp ay commune te yaakaar naa ne léegi suuf si war a des il faut ñu dugg ci suñu loxo ndax boo déggee fi am problème yëpp da dégg ñuy wax euh, ni ko waxati mbaling mm. di nga dégg ñuy wax euh, faloox te yooyu bokkul bokkul ci mbuur monsieur le maire dégg wax ji de waaw wax ji maanaam mooy que dañ leen di accuser yéen les conseils municipaux que suuf mbuur bi yëpp yaa ngeen ko dugal seen poste ah waaye loolu xam nga loolu moom dañuy ah, wax waaw déet mais xam nga nag aussi nag waaw ki ne jël ngeen suuf si jaay ko na génneel preuve yi ni jël nañu suuf mais parce que man bi ma ñëwee 2009 mais récemment rek jàpp nañ kenn si yéen déedéet loolu récemment loolu beneen problème la boo xam ni c'est devant la justice benn waay bu ñu ameel benn kii ameel ko mu ñëw porter ko plainte ci am digaate bu mu ko diggoon te mbir mi la nekk ca biir yëpp mënuñu ko wax fii parce que mbir mu nekk justice amul loo xam ni war nañ ko fee mën a wax loolu rek a tax waaye nag lu leer laa la wax kooku ñun wóolu nañ ko xam na liggéey bi ndax lépp moo ñu dimbali fii ci mbirum suuf si moo ñu dimbali ci mbirum bay dëkk moo tax nit ñu bari am te am léegi fu ñu dëkk hmm. waaye nag loo gis rek ah seytaane mën na cee dugg problème mën na cee am nit mën naa porter plainte am na ci droit ne man dañoo nangu sama suuf kii lañ ko jox xam nga mbuur bon loolu laa wax léegi maire yi fi jaar yëpp lotissement da nga fii mbuur rek ngay gis lotissement ci kaw lotissement da ngay lotissé jox nit mu toog 3 ans 4 ans def fa dara gaa ñu woote waat ñu lotissé waat jox ñeneen ñu jëkk ñu ñëwaat porter plainte ñii fi ne beneen maire ba ñëw xool ni kii tamit def fi dara mu def ko ñun nag bi ñu ñëwee yàlla daf ñëw dimbali dañoo ñëw waaw yéen ñii xam ngeen ci dara dañoo ñëw toog waxtaan ak yéen ne leen mbuur de fekk ñu fi dara suuf moom amul mbuur waaye nag litige moom du fi mën a ñàkk ndax ñi fi jaar yëpp ak lotissement yi fi am yëpp mhm. il fallait que nag ñu def benn assainissement boo xam ni c'est complet ñëw diagnostiquer suuf si li fi ne ñi nga xam ni place publique yi ñu toogoon da nga gis koo xam ni daf na ci benn place publique vingt cinq ans mhm. trente ans mais kooku noo koy def boo ñëwee place boobu dangay ngay mujj sax ñëw bind service technique yi ne leen kat ñii dañ fay yàgg def nañ fi vingt cinq ans ndax mën nañ leen a bàyyi foofu ñu ne waaw kooku dañ ko xool léegi nag bu ñu ko xoolee ñu daggal leen ko bàyyi leen fa nga gis nag ku ñëw taxaw fa leen waaye tax ñu daggal ñii bàyyi leen fi te ñun ñu nekk fële mënuñu am te lépp mënuñu leen koo daggalee noonu parce que am na infrastructure yi fi ne. Euh, am na infrastructure yi fi am na solo dinaa ci dellu si waat. léegi monsieur le maire ubbi na 25 minutes yi ñu mat na euh, léegi li des euh, mooy jël kàddu gi delloowaat ko askan wi su ko defee ñoomi ñu def ay contribution wala ñu ay question yoo xam ne dañ ko yëkkati jëmale ko ci seen monsieur le maire. askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee. maa ngi tudd Pierre Gomis ñu gën ma xam seen mbaaxaan Gomis ma taxaw fi en tant que citoyen de mais aussi en tant que ku jiite kuréel gu naan transport routier muy dem bi ak dikk bi ci biir commune bi. ci biir département bi ci biir région bi ci biir Sénégal li ma bëggoon wax rek mooy <clears throat> mille 2004 àndoon naa ak équipe bi fi nekkoon muy Mbaye ak équipe municipale bi nekkaloon ñu recensé woon taxi ci jamono boobu ba ñu nekkoon ñetti junni euh, ñaari junni taxi ak ñetti téeméeri taxi ak juróom ñaar fukki taxi ak juróom muy deux mille trois cent soixante quinze taxi ci biir commune Mbour. mën naa jàpp ne loolu bu yokkul wàññikuwul ñuy fay benn bu ne six mille francs par mu dugg ci trésor public ku équipe eh, ci mairie bu Mbour si pour loolu nag kon moo may moo ñu may ñun droit ginnaaw bu ñu rafet lool li ak yi fi am ci wàllu infrastructure routière mais ñu bëggaat aussi ñu gën ko améliorer problème bi gën a bi gën a am mooy centre ville centre ville ci oto yi am nañu problème pour defi accès circuler fi correctement ak kaaraange gi nga xamante ni moom la laaj ñu di ci laaj di ci xaari tontu ci monsieur le maire bi ci desaat mooy ci quartier périphérique yi am na foo xam boo jàppee fu mel tey mbuur céréer jàpp daaru salaam fi oto Nicolas yi daw ak yenn quartier yi mel ni moom ak yoon wi nga xam ne mooy tronçon bi jógee cimetière tefes jëm hôpital nga xam dafa laaj aussi ñu réfectionné ko ak yenn yoon yi mel noonu ak bi nga xam ne mooy accès Sandafe foofu itam ñu ngi ciy laaj monsieur le maire lan la ci nar ñu xool itam SDE c'est-à-dire marché ngelaw diggante marché ngelaw jëm onkat marché ngelaw jëm marché foofu itam même situation bila donc yii tëli dafa ñoo bëgg ñu réfectionné leen defaraat leen parce que y a des niveaux dina pool ici tam dañoo bëgg ci yi nga xam ne si mooy les grandes artères yi ni ci biir quartier périphérique bi pour mu yombal déplacement population mbuur bépp góor ak jigéen mag ak ndaw damay joxe rek contribution ci gestion municipale bi contribution laay joxe euh, di wax ni euh, gestion waxtaan la ci conseil bi am na fukki juróom fukki groupe politique ak juróom yoo xam ni ku nekk dafa bëggoon mais yàlla dafa dogal euh, maire si la mu toog donc bis bi mu toogee également à sa décharge ekkati na loxoom dox ñoxo loxo vraiment groupe yëpp parce que léegi politique bi day féete côté ñu jublu liggéey suñu dëkk donc ci loolu day laaj concertation ak groupe politique yi nekk ci biir yëpp parce que benn xel doyul te gestion cité amul benn loxo boo xam ne bii war nañ ko ci mën a génne donc loxo yëpp ñoom ñoo ci am. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa mbuur di leen sant di leen gërëm di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire si la di ko félicité di ko jaajëfal ci li nga xam ne euh, moom la ko waa mbuur dénk. waa mbuur mës ñoo am problème seen biir ku dëkk coose du am ak problème ku dëkk ginnaaw problème ndax benn famille la ki dëkk Sandassou ak ki dëkk euh, onze benn famille lañu xëj na ba bu problème amee rek euh, ñi nga xam dëkkuñ fii ñoo koy seq ak sunu maire. mbalit bi moo ñu sonal ñun waa zone Sonatel bu dee mbalit bi wàññeeku na ci biir Mbour ñun gisuñu ko liggéey monsieur le maire ci biir mbuur tamit bu dee liggéey na ñun waa zone Sonatel ak waa bokkuñ ci parce que mbalit bari na fa te ndox mi. tamit ñàkk na fa am na ñoo xamante ni ba léegi teen la ñuy naan zone Sonatel nga dëkk Mbour nag di naan teen loolu ñaaw na lool beneen bi zone Sonatel ñun ñuy liggéey ci usines yi ñu fa wàcc zéro heure ñemuñu wàcc zéro heure ñibbi si suñu kër fu ñuy liggéey la ñuy fanaan ndax ay agresseur te def naa jeunes yi bu ñu amoon liggéey agression dafa agression dafa am kon nag ñu ngi ñaan monsieur le maire ñun ñaar rek lañ ko mën a def ñaar rek lañ ko mën a wax pour mu jàppale ñu ñun waa zone Sonatel ci agression yi ak li nga xamante ni mooy mbalit mi mbalit mi sonal nañu lool parce que saret bu jëlee mbalit ci biir mbuur gi zone Sonatel la koy tuuree ji kon zone Sonatel mooy mbëbësu mbuur kon nag ñi ngi ñaan monsieur le maire mu jàppaleñ ci mbalit mi ak agression bi ak ndox mi damay wax rek ne gis loo xam ne lii lu xaw a doy la ci biir mbuur muy problème mu marché bi marché bi marché bi dama ci gis loo xam ne lii danger ngi ci te xaw ma ndax monsieur le maire def na ci benn vision dem seeti ko wala déet parce que boo calculer marché bi am na sept portes yu ci ne à l'époque porte bu nekk boo ko xooloon xaw naa mot six mètres ou sept mètres porte yi wàññi lañu leen ba nga xam ne porte bu nekk matul sax deux mètres te yi mun na am fu ne yàlla na ci yàlla musal bu fekkee ne yi am na ci biir marché bi marché bi nit ñi seen bopp danañu gaañante parce que ñu am benn yoon boo xam ne mën cee jaar te sapeur mën agsi ci biir marché bi ma ñaan monsieur maire mu béy ci benn xel pour def ay ci biir marché bi ay haute pression wan nit ñi naka la ñu koy utiliser bu en bu fekkee ne yàlla def na affaire boobu am ñaar ñu ko yàlla waa marché ci boppam mën a fay seen lakk bi sinon marché bi dina jeex nit ñi seen bopp dinañ mën a gaañu parce que du ñu am benn yoon bu ñu mën a jaar. nga xool wasi mbedd mi kenn mënut a jaar ci biir mbedd mi mbedd mi yëpp dafa saturé ay marché ambulant war nañoo yaatal mar biir bi parce que marché boo ko xoolee ay tailleur rek fa ne. nañ ji dugal nit ñi ci biir marché bi nit ñi mën a liggéey ci biir marché bi bàyyi mbedd mi mbedd mi mën a libre ak mbalit bi ñuy def ci diggu mbedd mi aussi marché bi yëpp dañuy def benn sën ci diggu mbedd mi ñooñu waa Mbour yëpp gis nañu lu day xesew xun kenn mënu faa jaar bu ngoonee asalaamaaleykum man maa ngi tudd pharmacie laa maa ngi wax ci kàddu jeunesse waa Mbour yëpp ñun xale yu Mbour dañoo am chance ndax meer bi ñu am gàcce ngaalaama maire booy fëgg 2 heures di matin ñoo ngi moom ci match de fu yi ñoo moom ci sabar yi ñoo ngi moom fu ñu ko woo ngénte yi dëj fu ñu ko woo mu jug ànd ak ñoom ñun jeunesse yi fu ñu taxaw di campagne dañuy sigg ci kaw ndax fu ñu dem lu baax la ñuy wax ci moom benn appel lay lancé ci jeunesse waa Mbour di ko lancé ci waa mbuur El Hadj Fallou Sylla moomul mbuur ñun ñoo moom Mbour ku ci am xalaat bu rafet am gis-gis bu rafet moom disponible la nañuy defar suñu dëkk boole suñuy xol ñun ñëpp ñu ànd jàppale suñu maire nax maire bi ñu am kat jafe na ci maire yi. muy artisan yi xam ne ñoo nekk fii si centre artisanal bi ñaan Pakk Lawbe yàlla dafa dogal ñu signante woon ak maire benn pacte loolu boobu si 2009 lañ ko signé woon ak moom boobu ba léegi yàlla dogal mu daay nekk si mbir moomu ñu koy dox di ko ànd ak moom di ko dox ba nëgëni si loolu la ñu fas yéene leeral ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toog tey ndaxte ñu toogee fii yàlla dogal ñu daal di wëral ñuy liggéey ak moom si par la coopération décentralisée ñi ñi ñëw waxuñu ko day mel ni comme def fi dara si cadre artisanat or que mu ngi jàppale artisans yi tey jii li nga xam ne moo manqué woon waa Mbour mooy que par la coopération décentralisée ñu jàppale si artisans yi parce que coopération décentralisée bi depuis ba ñu décentre ba ñu bañ koo bañ ko bañ ko nasee ci jamono Ablaye Wade ak léegi amul benn maire bu nga xam ne nii mus nga ñëw fii taxawal fii un projet daan ne kat par la coopération par la coopération décentralisée dama bëgg ñu jël fii objet yi nga xam ne nii produit yi nga xam ne moom la artisan yi di liggéey fii Mbour pour ñu koy yóbbu bitim réew te loolu si la nekk ñu siy dox boobu ba léegi nii yaakaar naa du yàgg loolu dinañ gis fii nii ay artisan di fi jóge di jël seen i marchandises di ko yóbbu bitim réew di ko exposé foofu di ko jaay di si jàppale population bi waxuma la dara waxuma la mbuur Mbour mais département Mbour si boppam fàllu si la daf leen a fas yéene jàppale si artisanat bi. merci. nit bu defee lu baax da nga koy gërëm nga rëm moom bugg leen ko mais dinañ ko wax waaw fàllu si la xale yi tuuti boo leen laajee kuy fàllu ñun la mi ngi nii wala ñu yóbbule la ndax ndax oyofam. xale bi gën a tuuti ci mbuur laa la wax boo ko fëggee mu yóbbu la kër fàllu wala mun la fàlloo nga ne bu doon ku diis la kenn du ko xam fàllu loo ko fëgg mu jóg lu mu yëg jóg lu mu yëgul di laajte lu xew maire bu oyof tooy li mu mën mu ngi koy def dégg nga amuñu woon ay hôpital yu mat amuñu woon ay maternité yu mat amuñu woon tali yu baax amuñu woon ay poubelle yu ñuy sotti suñuy mbalit amuñu woon yu bari ci biir mbuur kenn mënul toog di ko lim ndax deux minutes la kon nag li mu fi def ñun gis nañu ko te ñun ay ay njaboot lañu am nekk ay père de ay ay ay mère de famille. yor sunu njaboot xam nañ ñun li mu jëriñ ci biir mbuur ñun xam nañ ko ndax man commerçant laa ci biir marché bi laa nekk marché bi ak leneen lu dul marché xam naa lafay fay dox te moom moo ko fa doxal te amu fi woon ci dëkk bi waxtaan nag wax dëgg rek moo fi nekk nit kuy def lu baax ñëpp duñ la bëgg. dégg nga waaye moom ñi ko bëgg bëgg nañ ko te xam nañ xel ne dañoo bëri rek daan gagné comme gagné nañu nag nañ ko may ne moo gagné moom la fi yàlla teg kenn mënu ci dara nañ ko nangu. waaw nañ ko nangu moo gën. ku gis jant dina ne jant ngi nii man ba ma fay dëkk ak léegi yaakaar naa mot na war naa mot vingt ans depuis lotisé guñ ko waaye maire yi fi nekk yëpp def nañu effort mais effort bi ñu gis Fallou Sylla def ci côté zone Sonatel gisaguñu benn maire bu ko fa def ñun xam nañu loolu te yàlla moo tax ñuy wax duñu seedeel kenn loo xam ne gisuñu ko parce ba ñu fay ñëw courant amu fa ndox amu fa ay case de sante amu fa quartier boo xam ne am na ñaari CM ci benn quartier la am zone Fallou Sylla moo ko fa def ñun li ñu fekk bu dee école li fa nekk ci ay école maternelle ëpp na juróom benn école ñun lu ñu seede bu dee ay case de tout petit aussi li fa nekk ay case de tout petit mat na ñeenti kaas de tout petit loolu yëpp ci zone Sonatel la Euh, bu dee problème mu inondation wala mbalit nag la ñuy wax la mu fa def ci wàllu mbalit ci jamono yii gisaguñu kenn ko ko fa def parce que li ñuy wax population mbuur dafa yokk te dafa bari mais li mu man mu ngi ko ciy def mu ngi ciy def kem kàttanam loolu yàlla dong moo tax ñu di ko wax wama sahid naa ilaa bi ma man nag yàlla dafa dogal maay président association des chefs de services départementaux de Mbour kon acteur la ci lii ñuy defar ni tey ensuite may doomu mbuur di yeewoo mbuur donc war naa ci mën a wax li ma jëkk a wax daal mooy baati seddalee doon ci conseil municipal bi génn ak bi dugg duma duma yàgg na ci ngërëm li fàllu gërëm nañ ko sant ko ci lii ko yàlla def tey ak ñi ko àndal li ko ci xamal rek moo di élection yi métti woon na ñaar fukki nit ak juróom ñaar fukki liste ñoo soxla woon dëkk bi yàlla jox na leen ko ci jàmm ci coobareem ak ñi mu ko àndal waaye jàngat bi ñu koy jëkk a jàngatal ci élection yi mooy mandat bi dafa nekk mandat de travail c'est un mandat de développement mandat la boo xam ni da ngeen war a jaamu soxlay askan wi ci juróomi at yi ñëw commencé ngeen ko ñu ngi ñaan mu continuer parce que maire yi ñaar a ko yor muy gare routière ak marché il faut que ñu xam ñi yor oto yi nuñ toll ñu nekk ci marché yi ak ñu yëngatu ci commerce bi nuñ toll parce que maire yi taxe lay dundee ak fiscalité ab dëkk nag boo ko bëggee yor parce que man dama yor mairie Thiès ñaari yoon pour ñu ko xamul délégation 2002 délégation 2008 kon xam naa luy mairie il faut que xaalis bi dugg képp koo xam ne da ngay nga yeewoo mbuur di fay di liggéey ci dëkk bi di am looy yóbbu sa kër ak sa poos war ngay fay tax ak impo ak patente donc mairie bi mandat bu bees bi dinañ koy def seen credo recensé képp koo xam ne war ngaa fay impôt ak taxe nekk ci département nekk ci commune bi li nga war dugal nga dugal ko. marché bi wax nañ ko léegi ay jafe-jafe la parce que man ci taatu marché bi laa dëkk marché bi tey maar de taali bi amoon jafe-jafe dana am problème pour pompier dugg ci biir marché bi c'est de sérieux problème. beneen bi mooy marché bi xamuñu kii fait quoi xamuñu kan mooy fay ak ku dul fay wax naa ko maire barke démb il faut que cantines yi nekk ci marché parce que def naa ko fi ma nekkee Thiès gare routière bari nay cantine marché bari nay cantine de E à il faut ñu xam ñan ñoo nekk ci marché bi ku ci nekk ñaata nga war a fay ñu taxawal bureau fiscalité bu wóor ak bureau boo xamante ne mooy encaisser taxe yi ànd ko ak impôt ak domaine ak trésor Fallou Sélé mii dañ koy ñaanal mandaam bi yàlla na ko yeggale ndax nag wax dëgg yàlla mbuur yaatu na mbuur it ku gis mbuur bu njëkk gis mbuur tey xam ne mbuur changé na Mbour changé na ci hôpital am nañu ay hôpital pédiatrie baa ngi nii Fall moo ko inauguré école yaa ngi nii Fall moo ko inauguré boucherie baa ngi nii Fall moo ko inauguré te na kuy ñaan meer mm, da ngay ñaan maire buy liggéey te Fall mi ngi liggéey Fall guddi Fall bëccëg Fall tàkkusaan ah lan la ñu musala maire defal ñun jigéen ñi ñun jigéen ñi lim ñu defal mm-hmm. mooy bu ñu soxlaa mu jóg bu suñuy soxla rek lépp rek ndax da ngay feebar mu jóg. nga am naqar mu jóg nga am bànneex mu jóg. ñu di wax ne ah di la may jën chaque jour nooy nappee ko gën. dama ne moo ñu teree rooti moo ñu teree jënd sondel moo ñu teree defi lenn mhm. tubaarkàlla macha allah dara manqué wul mbuur accouchement yaa ngi nii jigéen ñi daan jigéen ñi toll si jur fi ne nii xam nga ñun moom ay màggal la ñu ne nii. Mhm. tollatuñ ci waaye fi mu ne nii foo taxaw guddi mën a ñeme mën a dem hôpital. lamp yaa ngi ne raañ robinet yaa ngi xelli ndox maa ngi xelli liñ koy ñaanal juróomi at yi yal na ko yeggale sa sago mandat bi yal na yegg. xam nga bu fekkee nga def benn mandat ñu bari di xëccoo ñu joxaat nga mooy defoon nga boo def woon kenn doo fa tegaat. loolu moo yoonu maanaam parce que wax ji dina bare bëree bëri ñu naan liggéeyu liggéeyu liggéeyu man de du ma pees mais conseiller la te incha allah fas yéene ma koo bàyyi benn yoon mu dévier. bis bu dévier dinaa xëcc ñu ko yoonu àjjana bi nii la nii la ñi bëgg noonu lañ ko war a jàppale mais du question tàggaate bu bëri wala ñi kontaan ñi kontaan monsieur le maire ñi kontaanul incha allah nañu fexe ba ñu kontaan obligatoirement parce que quand même yaay seen njiit benn bi am mooy nag damay ñaan ñëpp ndax afa am lu ma gëpp ah, ñu nekk mbuur ñëpp fii buñ bis pencee nañ laaj maire nu mu leen yore woon laaj conseil municipal yi nu mu demee woon xam ma bëgg ngir yàgga mbarit mi bari na maire mi ngi def ay effort lépp mënut a xëy sotti mais nañ bàyyi salte bi nag ak sànni bi ñëw ba ci digg marché bi nga jël sa mbarit sotti digg tari ba yooyu laa bëgg daal maire pour liggéey bi am bu pratique ñu fexe ba wut ay nit ñoo xam te ne dañuy càmbar loolu ba kenn sànnet ci fura neex ci dëkk bi bi ci des mooy nga jëm a ubbi fi benn bureau ku am loon naqadi kenn ku nekk mu ñëw dugg fa wax xalaatam ñu bind ko nga jéem a xool incha noo noo koy doxalee ndox daal laa bëggoon ci sa biir discours da nga posé woon sa candidature ci Coupe d'Afrique ma lay laaj ci wàllu ndaw dëkk bi langa nga posé woon sa candidature ci Coupe d'Afrique bi fan la ci toll tey fan la ci toll parce que waa mbur soxla nañ ko beneen bi ci des dama yor wàllu marché ñu amoon problème mu comme Mbour dëkku hôtel la boucher yëpp am problème mu jaay seen yàpp parce que ñu ngi doon jënd yàpp wi ci Tëngéej ak feneen ak feneen nga ñëw tabax abatoire yu bees collaborer ak banque union européen ñu tabax abattoir yu bees boobu ba léegi ñu koy xaar aussi comme lépp pare na fu ci toll pour ñu mën a démarrer parce que jaadu na lii génn ci département de mbuur lii génn ci commune Mbour waa mbuur man koo jariñoo pour que ban date la ñuy jàpp pour inaugurer loolu ubbi ko ñu mën kee fonctionner pour que liy génn ci recette Mbour ñu bañ ñoo rëccati ci biir Mbour. ma daal ci turu xale yi ak ci turu boucher yi. loolu laay laaj. di wax rek nag ci mairie bi ndax damaa bokk ci conseil yi conseillère laa nekk ci biir mairie bi yàlla dogal ma yoroon social yàlla dogal ma yoraat ko ci kàttanu yàlla. monsieur le maire def ci social lu am solo fii ci biir mbuur dañuy dañuy voteel ay 10 million ñu di ko jox population bi képp ku am jafe-jafe boo ñëwee bureau social dinañu ko faj ndax fi la ñuy fajee social yëpp ci biir mbuur ñu fi joxe xar dinañu fi joxe pañey ramadan dina monsieur le maire dinañu jox année bu nekk dinañu woteel 10 million pour population bi. ku nekk xam ne ne dañuy jël si fii social ba tàyyi fii ci biir maire yi monsieur le maire di ko def te loolu mi ngi ko amee ci euh, bi bi mu yéegee maire kenn xamuloo woon ne social mas dina génn ci maire yi ci moom lañ ko xamee. kon monsieur le maire ñu ngi lay ñaanal yàlla. ñaan lañ koy jox. Hmm? ñaan lañ koy jox social bi. social bi euh, ku nekk rek. ak la sa soxla laaj. waaw du ñu jox conseil municipaux yi. déedéet conseil municipal benn mësul am. waaw population bi ñoo koy jël si. te fii la ñuy ñëw ku nekk dangay indi sa carte d'identité émergé jël bu ñu paree signé ko jox ko euh, payeur jox monsieur le maire. ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant wasalaam. askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee. dañu ne dafa am lu ñuy déploré ci Fallou Sylla mooy manque de communication. c'est quoi le problème. am na sax ñuy wax euh, trop de communication tue la communication. parce que nee nañ boo nekkee toujours ci rajo yi di wax di wax di wax di wax bu yàgg dañ lay jéppi te damaa seetlu benn affaire man euh, am na ñoo xam ni ñu ngi fii ñu xarañ ci affaire communication biñ ma ko waxee ñu bari nangu naa ko dama ne loolu dañ koy changer dañ ci gën a waxtaan gën a communiquer ak nit ñi te yaakaar naa loolu mandat bii di ngeen gis ñu communiquer ci lu baree baree baree bari. loolu moom bu yeboo nga xam ni euh, commencé nañ ko sax ndax fan yëpp maa ngi dem au charbon maa ngi dem ci rajo yi maa ngi dem ci télévision yi di wax la preuve mooy bi ngeen ma waxee ni fàllun dañuy ñëw ma leen ay ca bisimilah pour léegi ñëpp xam ni amul lenn lu ñu fi nëbb amul lenn lu ñu làq-làqal euh, sànq daaf daf koo wax dafa ne 2009 émission ba def ñaqoon naa fi trop sonn naa lool ah ma ne ko wax nga dëgg parce que lañ lañ doon jàmbat di ko wax lu bari dama cee góorgóorlu ba nag su ma toogee ba ñu ñëw ren jii euh, dégguma jàmbat yu bari damay wax ni kat maa ngi avancé dëkk baa ngi jéem a avancé nañ ko gën a def parce que nag aussi du mat mukk nag euh, doon naa ko wax léegi waa zone Sonatel dégg nga am na ñu wax ne lii la am na ñu wax ne lii la ba tey sax wax ñu dëgg def nañ fa lu bari courant ba dem na fa ndox ma dem na fa waaye nag ba léegi am na lu des ci mbalit mi am na lu des kooku ñu ngi ci kooku moom bu seen xel dal ci lépp loo xam ni zone Sonatel da sax nee naa temps yi passé nga ma doon bañ sax yeneen quartier yi mere ma dama ne tali yeeg bu ñu commencé fële lañ koy commencé léegi zone Sonatel bañ nga xam ne ñoom ñëpp euh, kontaan nañ ci ñu bari wax nañ ci loo xam ne vraiment ànd nañ ci. Euh, laata ngaa ñëw ci 6 000 francs yi nga xam ni moom la la transporteur yi laaj sànq. Mhm. nee na ñu dañuy joxe 6 000 francs saa su ne. waaw waaye bi tey jii la gën a war a la gën a aay. waaw manque d'organisation bi am tey ci wàllu transport bi waaw waaw xam nga ñoom dañoo ñëw ne dañuy fay maire yi effectivement maire yi nag booy liggéey da war a fay wax na ko sànq dafa ne plus de 2300 taxis la ñu recensé te fi mu nekk ëpp nañ ko te fi mu nekk boo koy xool ñuy fay presque euh, li ci manqué 1000 bariwul ay 1000 ba nag am na loo xam ni des na te temps yi ñoom waxtaan nañ ci ñoom dañoo bëgg taxi buy daw ci dëkk bi dañ koy identifier tappal la numéro bu mag bind ci commune de Mbour ñu xam ne lii mooy sa liggéey fii ci dëkk bi waaye nag ñëw ba liggéey ba ngoon jot nga taal sa taxi ñibbi Thiès wala nga ñibbi Fatick wala nga ñibbi euh, feneen te doo fi bàyyi dara loolu dañoo bëgg mu dakk ndax fi mu nekk dañoo ñàkk xaalis bu baree baree bari euh, te bi gaa ñi jógee ñu commencé liggéey kii wax na ko léegi nee na marché bi am na ci ay cantines yoo xam ni vraiment war nañ cee jóg pour nit ñi fay ndax man bi ma ñëwee dama fee recruter vingt personnes ay xale yoo xam ne yu xarañ lañu ñu dugg ci dëkk bi di wër di fayee ko moo tax bu ñu demee. bañ ne maire Mbour léegi euh, nekkatul au rouge kooku dañ cee war a sant yàlla parce que fii mu nekk nii ak euh, ni ñu ko waxee léegi euh, conseil minisipo yi dañoo ñëwul sant dañu ne li fi doon am sax gaa baax na waaye dañoo bëgg ñu yokk ko. parce que ñoom it fii mu nekk mois bii di ñëw sax fan yi le huit danañ def orientation budgétaire dañoo bëgg fépp foo xam ni niche la xaalis bi loo xam ni war na faa jóge te ñu jaaral ko ci yoon ñu andi ko xam nga nee nañ mille francs 6000 francs am na ñoo xam ni ñu ngi jooytu ndax 6000 francs yi na parce que nee nañ tali yi am na yoo xam ni war nañ ko defaraat te mbaaxaan ni doon wax loolu yaakaar naa ni programme bi ñu defar tali yi war nañ ko ko teg nañ ko ci loxoom. parce que vrai vraiment nawet bi passé kàmb yu bari euh, ndox mi indi na fi kàmb yu bari indi na sose bi am na lu bari lu yàqu waaye nag dañ doon xaar tuuti nawet bi jeex ñu defar ko centre ville bi tamit ñëpp a ngi koy jàmbat mais nag. yaakaar naa ni euh, euh, waxoon naa ko en 2009 mënoo defar ay omelette te tojoo ay nen ndax assainissement bii ñuy defar di gas dëkk bi ñu defar ay tuyaux kooku bés bu paree la ñuy soog a defar tali bi ndax mënoo euh, nit ñi ne tali bi nga ñëw defaraat tali bi ci kaw léegi nit ñi continuer di gas loolu du mën a loolu du mën a sotti moo tax dañuy ñaan nit ñi rek ñu muñal ñu tuuti rek assainissement bi li ci des parewul li ci des bariwul léegi ñu àggale ko. ñu ñëw ci waat artisan yi. waaw xam nga artisan yi. am na ku ko wax léegi. dafa ne ñoom dañoo nekk dëkk bi di liggéey te affaire cantine chère ci ñoom xam nga daf ci am benn système boo xam ni ñun euh, ki nga xam ne yor na marché yi ak commission yi ñu ngi ciy waxtaan. ndax ñun bi ñuy laata ñëw dafa am ay marché euh, ay cantines yoo xam ni nit ñi ñoo ko jël ndax maire yi li muy fay ci ko ci ci cantine passé wul dix mille francs waaye dangay gis ku yor sa cantine pendant vingt ans vingt cinq ans léegi ñëw keneen ñëw nga lu nga suuluyee ko ko di ko fayee ko ay quarante mille cinquante mille. ña dem nag nangu loolu a ah, dana jafe ndax boo bëggee liggéey il faut que nga nangu yenn yi waaye ñun ñi suñu bopp xam nañu loolu métti na lool. parce que dañoo waxoon ni koo xam ne joxoon nañ la kanti dem nga ba mënatoo ko yor na ko mairie bi nangu ñuy yëkkati ko jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo waaye jël benn cantine lu euh, ñu yàgg ci fay 10 000 francs euh, dem di ko luyee 40 mille weeru wu dee nga am ci bénéfice 30 mille loolu maire bi amu ko te loolu nag danañ ci jóg kooku ñoom euh, artiste ñooñu bu jaw seen xel dal ci parce que euh, cantine yi ñu ko yeeyoo nag la ñu koy jox parce que ñi ci des nag fi mu nekk business lañ ciy def te business boobu dañoo bëgg nag mu dakk ndax nit ñi sonn nañu trop euh, da diñ tudd problème mu cantine mu am benn waay joo xam posé na ko question jëm ci marché marché bi mhm. effectivement man ba ma fa duggee dama jaaxle non marché bi ma fii tey jii bu fekkoon ne yàlla tere musiba amoon na fa amaa dafay dama dana bari de. waaw yàlla dafa def nag fii waaw fii moom yàlla dafay def ay ñaan ndax euh, dañuy sant yàlla bu baax ndax gis nga euh, marché bi ñun ñoo la gën a xam ni marché bi marché bi marché bu doy waar la ndax Mbour am na yeneen marché de waaye kenn du ko tudd. mbuur bari nay marché mais dañoo yaakaar ni marché bii nekk ci booru géej ku xëy suba teel te demoo ci marché boobu rek da ngay defee ñu demoo marché ah, waaw parce que marché bi nag fa la jën yi di génn mhm. fa la lépp di génn mu jegeñ waaw moo tax temps yi suñu programme na marché au jaay jën rek la ñu ne fii dañuy tëj mbirum jën yi yaakaar naa ni ji nga xam ni euh, commission bi nga xam ne ñoo yor pêche ñu ngi nii toog waxtaan nañ ceeg ñoom euh, sunu euh, sunu partenaires yi nga xam ne ñoo far a def marché bi ñëw nañu commencé nañu ko ba nga xam ni léegi jën yi boo ko jëlee nga def ko fële nga def marché au légume fële yaakaar na affaire bi dana tane waaye nag ni ñi ku xëy yakaar naa ni boo àggul ca marché central bi te marché bi màgget na màgget boo xam ne ñun dañoo judd fekk ko ci ñun mu nekk sunu objectif mooy raser marché bi. ah déet xam nga nag doo tëbatëm ne tey ma raser marché. ah d' abord xaalis xaalis xaalis. ay milliard un milliard et quelque wax dëgg yàlla. Ah, da ngay xam ni tamit un milliard bi a ah, dafa am ñuy liggéey ñu di di fay. xam nga loolu aussi boo tëbee jël xaalis bi yëpp nag daf ko ne tey ma def ko ci investissement bon tey suba beneen problème ngay am. ndax mais boo tëbee aussi xaalis yëpp dugal ko ci fonctionnement nag. ah déedéet dafa am limite parce yëpp seen xaalis budget bi yëpp yéen a dugal ci fonctionnement. fonctionnement dafa am limite fonctionnement dafa am limite parce que il faut que affaire bi nag xaw a équilibré tuuti mais nag xam nañ ni. mais yi waaw non xam nga fi mu nekk ñun deen sax mi boobu ñun agaguñu fa. pour cent investissement. de de de de 25 pour cent moo waaw kooku nag. noonu lañ ko ko tëralee noonu. moo tax mooy. ah waaw loi bi nag xam nga waaw nag ñun dañuy xam nga nag. askan di joxe seen xaalis. yoo xam mu jox ay conseillers wala ay responsable politique am. waaw xam nga monsieur le maire bu seen i xar ak ñoom seen. dama lay wax benn affaire man maay maire boo xam ne bi ma fi ñëwee en fekk naa benn oto boo xam ne am na juróom-ñaari at ñëpp ne nañ maire bu accès day changé oto ñëpp di ko wax waaye bi ma accès xalaatuma sax loolu dama ne loolu ñu nar a jënde oto nañ ko dugalaat ci biir dugal ko feneen jënde ko ay làmp sama oto bopp laay yor moom laa dox ba léegi may wax yow aw ma oto xam nga loolu aussi lu am solo la parce que da ngay xool li population yi bëgg nga def ko mais nag mu defandoo lépp aussi euh, des miti ndax keroog wax naa ko fii dem nañ sax ba saag ñi ma waxoon ni bu ñu jënd oto nañ ma nag il faut nga jënd oto ndax toujours am na anecdote boo xam ne dama koy wax ministre bi ñëw na fi ñu ànd di ko toog di ko teeru ñëpp taal seen oto dem ma taal sama oto ne du tàkk gaa ñi bëgg ma faa bàyyi léegi nag ñu ne man nag une moire il faut nga il faut nga wut oto nag parce que dangay ngaa dëkk bu mag euh, nekk ci dëkk bi aussi ni ñi euh, teg la fi il faut ñu nag teg ci ay condition conditions yooyu nag mooy loolu rek. Euh, dafa koo ko état état yi fu mu toll. waaw abattoir yi heureusement sa inspecteur de l' élevage mi ngi nii toog à 98 pour cent mbir mi pare na fi mu nekk daf cee am ay réglages yu ñu def maanaam li jëm ci affaire courant bi ak kii yooyu mais abattoir yi moom pare na fi mu nekk keroog sax ministre bi ñëw na fi nee na ma fallu fii ak we fii ak ñaari weer ñetti weer dana ñëw seet ban bés la ñuy jàpp pour ko te loolu tamit lu am solo des abattoirs yoo xam ni c'est des abattoirs modernes très modernes et puis loge abat bi ñuy ñun dañoo jiitu ndax bi ñuy laajte def abattoir yi dañoo defar loge abat loge kii boucherie nga xam ni fi ñuy jaayee yàpp yi bu njëkk danga nga daa ñëw ne fii daal du ma fi jënd yàpp waaye fi mu nekk defar nañ ko defar boo xam ni vraiment waa dëkk bi yëpp kontaan nañ ci macha allah. sama jëm ci camp 2015. di waaj a poser question. Mhm. yaa ngi koy maintenir ba tey waaw xam nga bi ñu ñëwee ñun dañoo ñaan ministre bi fi jëkkoon a jaar ministre sport yi fi jaar yëpp dañ leen ko waxoon. foofu tamit dañoo joxoon ay cahier de charge dañu ne am na ci yoo xam ni euh, boo leen ko defee rek mën nañ ko fee indi ñu ne leen loolu de ñun lépp li ngeen yoxoon yëpp def nañu ko li ñuy ñaan daal mooy mbuur day centre boo xam ne soriwul ndakaaru nu sommes en vingt minutes du nouvel aéroport te am nañ ay infrastructure ñu ko ñu bari bëggoon nañu ko waaye ñoom waa kaaf ci seen bopp ñoo fi ñëwal seen bopp xool bi ñu xoolee dañu ne am na ci yenn aménagement yoo xam ne nañ ko fi def maanaam démb sax fi ministre bi ñëw ministre euh, du sport ñëw na fi démb pour def pause pour def euh, lancement tribune yi nga xam ni ñoo war a abriter kaan euh, boobu di ñëw pour vous dire que rek kaaf nangu nañu ko FIFA nangu nañu ko mais nag euh, gouvernement Sénégal ko jëkk nangu ñoo ko jëkk nangu Luambourg ñu ngi ciy profité sax euh, di remercier vraiment fédération ak état bi di di gërëm ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi yëngatu sport parce que bi ñu choisir Mbour waa Mbour xam nañu mérité nañ ko ndax Mbour day dëkk boo xam ne dëkkub sport la Mbour judokaay yu mag yi ngay dégg Sénégal yëpp fii la. mbuur làmb ji fii mu nekk ñoo ko jiite ndax fii mu nekk nii euh, roi des arènes fii la mbuur boo jógee ci culture bi fii la ndax bërki démb rek petit gàlle fii la mbëggee fii la ak yeneen ak yeneen yoo xam ni loo foo ci laa rek ñoo ne la waa mbuur kenn mënu leen ci. subvention yaa ngi leen subventionné ASC maa ngi leen subventionné te dama koy yokk soobee yàlla fii mu nekk maa ngi ci maa ngi leen jox 60 millions. 60 millions de subvention. waaw 60 millions. maanaam ASC bu ne ñaata la yow. non ASC yi xam nga mbuur nag moo dafa bari ASC mbuur dama leen fekkoon ci ASC yi ñuy fay ay fukki junni ASC ma ñëw def ko cent mille dama ko multiplier te bëgg naa bëgg naa ko yokkat ndax mbuur léegi eh, am nañu ñetti équipe bu euh, première division yoo xam ni ñu ngi fi di yëngu te ñooñu il faut aussi ñu jàpp ci waaw gis nga fédération gis nga temps yi fusion yi ñuy def ak yëpp dañoo bëgg rek dëkk bi sur le plan sportif mu gën a jëm kanam. Euh, xam naa ne jàppal ne fi leen ñeent daañu fi dellu si waat de. incha allahu rabi. bilan moom ndax la nga wax yëpp def nga ko waaw am déet. bilan moom bañuñu ko ndax gis nga fii mu ne. Mm-hmm. am na ku ko wax léegi. fii dañoo am bureau développement local bureau baa ngi nii toujours ñoom bu ñu def orientation budgétaire sax ñoom ñooy jëkk ñëw taxaw ne population bi kat lii lañ bëgg. lii la ñu wax lii la ñu wax lii la ñu wax ci loolu nag le euh, conseil municipal yi di sëkkandiku te conseil municipal yi aussi tooguñu dañuy wër ci dëkk bi man damaa gis ni sunu conseil municipal yu bees yii fi ne ah neexaluñu kenn dañuy ñëw ne maire eh koñ bu leen tàkkul dara tàkku fa demal nga def làmp yi ku ci nekk da ngay wax loo xam ni mooy yoon loolu mooy jëmale dëkk bi kanam dama ne fi mu nekk politique bi jeex na jeex na bu yàgg léegi ñi nga xam ni ñëpp ñoo fi nekk nag ci conseil municipal bi ñoom ñëpp d'accord nañ ni liggéey dëkk bee ci des te bu soobee yàlla lépp luñ ci mën danañ ko ci def. di la gërëm. Mhm. Euh, ci disponibilité bi looy tàggatoo. Ah, comme ni ma ko commencé woon rek di leen delloo jukkal parce que nekkoon naa fi. di liggéey ñu wóolu ma falaat ma te fal boobu nag bu soobee yàlla lépp loo xam ni dinaa ko ci def dinaa leen jàppale pour dëkk bi jëm kanam maag conseil municipaux yi fi nekk ak nag waa population bi yëpp parce que ñun rek mënuñu ko parce que ñun ñii conseil municipaux yi fi nekk ñëpp dañu fee teg di gërëm aussi adjoint au maire yi fi nekk bés bu set aussi ñu ngi ci maire bi ñëpp ñoo xam ni aussi yaakaar nañ nii bu ñu ko waxee dëkk bi jëm kanam nous som à l'écoute di gërëm ñëpp nag di ñëpp ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax a baax askanu Mbour di sant bi di gërëm bu baax a baax ki nga xam moo di monsieur le maire waaye mënuma maa jeexal te santuma gërëm Thierno Daaf mi nga xam mooy suñu correspondant bi nekk ci kër gi wala ci région bi liggéeyam ak taxawaayam wax dëgg yàlla ci émission yi doon na la nga xam lu ñu rafetlu la maa ngi sant di gërëm Papis mbay mi féetewoo ci wàllu caméra bi féetewoo ci wàllu réalisation bi sant gërëm bu baax a baax Demba Thiam ci wàllu montage bi kon mbokk yi lii moo nekkoon seen émission jàkkaarloo askan wi ñu leen di dig daje àllarba jàmm ci beneen émission jërë ngeen jëf. askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee askan wi yëpp bokk benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndool gi ci réew mi Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coow bàyyi xéeroo te bàyyi ngaayoo askan wi loolu la ñuy xaar ci